gi changé na. dama ne. Ah. cin bokkul cafin. jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay. cin bokkul cafin du si suba waxoon laajoon ngeen ma. interview lu ma waxoon. bu ngoonee. waaw dar gémmiñ. Ah. làmmiñ commencé na dar gémmiñ. gisandoo abonné ba beneen jaaj xale yaa ngi noonu ñu ngi jibile waa yaa ngi noonu waa kër Sonko yaa ngi noonu di ah première résultat yi wàcc nag tendance bi xam ne ni il fallait mu demee nii parce que bu ñu xoolee au niveau national Diomaye def na fi loo xam ne nit ñi xalaatuñ ko woon mi ngi ni que ni Sonko moo dem mais macha allah kon des na nag mais xam naa ni mën nañ dem pré mën nañ dem deuxième tour mais wóoragul mais ñu ngi doxalaat parce que fu ñu toll nii ba léegi résultat yaa ngi wàcc parce que bu ñu xoolee tendance bi entre ñaar la muy kan muy Amadou Ba ak ki nga xam ni mooy Diomaye mais ñii au niveau de ñi ngi jubilé waa kër waa kër Diomaye ñi ngi jubilé mais tamit ëppale ca Fuuta ñi ngay sibile ñun parce que ñoom tamit ñoo fa gagné kon yaakaar naa élection yi muy élection yi moo bari doole Diomaye moo bari doole Diomaye moo bari doole Diomaye moo bari doole Diomaye moo bari doole Diomaye moo bari doole Sénégal ne déedéet rek déedéet nguuru yàlla rek dul jeex voilà nguuru yàlla rek dul jeex point final. Oh, law dañoo sonn waay voilà. law dañoo sonn. law Macky bu ma waree wàcce barki alxuraan waaw dañoo sonn waay. Macky Sall il nous a fatigué. fer billaay walaay Sonko kase Sonko rek moo fi nekk billaay walaay fii ñooy borom Sonko xol dafa sedd xol dafa sedd billaay lii dañ ko war bu yàgg la waroon doon bu yàgg parce que dañu teel a sa war war projet dañ ñu war projet ñu gis suñ bopp parce que ñi fi nekk defuñ dara si xale yi moo tax ñuy dem di canaliser sonn billaahi carte gi rek rek rek rek. carte nañ nañ nañ. naan ma léegi Sonko la ñu bëgg bi. ñun Sonko la ñuy topp. Ah, ah, ah. Eh, ñun. Sonko la ñuy topp. ñun ñoo ko fayee Jomaay. Sonko. farata ko mu dajoon ci Sénégal yëpp jeex na. tey suba bi nga xëyee. sant ah. nga ni dina demee nii. non bañ a ka. Ah. non dafa sonn ku sell ki. lii rek la ko sénégalais yi mën a fayee. nga ne ku. ku sell ki. Ah. sénégalais yi lii rek lañ ko war a mën a nga nga turu ku sell mooy kan. ku sell mooy kan mooy Seydina Ousmane mu sell mi. jomaay rek lañ ko mën a sibile teelu nga yaakaar. ah ma sibile teelu. waaw non non loolu lañu loolu lañ digoon. waaw xëdd ndogu dañuy gëna 60 lañ ñëw wala 70 inshallah kon am ngeen yaaka ni élection uh, yi ren yi ci ha? premier tour lay jexé waaw waaw loolu amul lu amul ma dem dañu dañ ci liggéey dañ ci liggéey pendant presque 5 ans ñu nekk ci di ci liggéey diko wajj looloo tax tey nii rek la mën a demee te nag lii mooy jàmm Sénégal lii mooy jàmm àdduna bi yëpp parce que li fi xewoon at yi yi ñu génn yëpp jaru ko woon fii dong lañ jëm si woon kon nag lii ñu def tey mooy wane ni Sénégal retrouvé waat na boppam Sénégal delluwaat na am bés tey la Sénégal am indépendance ñu ngi door am indépendance tey parce que suñu leader dafa jóge fële ñëw bàyyi liggéeyam daj lu ne ñàkk liggéeyam ñàkk njabootam keroog bi mu génnee kaso ba fii ma la koy waxee mën na am dafa seen ay jabaram seen la ci am ba Bassirou Diomaye Faye tey lay door a gis papaam ak yaayam ñooñu nag dañu amal leen dañ leen amal hommage parce que Sénégal da leen a jaral kon nag mais nag tey fii ci Médina suñ fi taxawee grâce à suñu coordinateur Demba Dioum 2018 ba léegi mu ànd ak ñun di ñu dimbale di ñu jàppale di ñu defal lu ne ñu ni tamit ñu topp ko si ginnaawam ñu topp si ginnaawam ba nga xamante ni wax dëgg yàlla li bettuñu kon tey moom it am na hommage bu rëy parce que bu ko neexoon li nit di soxla yëpp pour pour pour politique am na ko mais da koo teg fële ñëw jël alalam di ko ci def pour ñu gagner pour Sénégal changer kooku defu ko pour boppam au niveau de la locale ñu gis ni euh, seen i génn ci pendant les élections bëriwul gisuñu leen lu bëri mais ñu gis ngeen battre euh, fii Médina comme ni ngeen ko defoon ci législative bi lan mooy seen secret yéen ak waa Médina. waa xam nga Médina dafa am lu fi xewoon ci locale yi. maire maire koñ bi dëkk bi commune bi génn ni Médina ci poosam la ne te ñun ñi nga xam ni ba Médina lañu ñu màggee ku xam doomu Médina xam ni kenn du leen yàpp loolu nag bi mu amee hmm. Médinois yi ñëw jox ñu loxo ñun nag dañ doon liggéey hmm. euh, ci ci ci silencieux lañ doon liggéey dañ doon dox ñu naan ni yéen ana seen ñun loolu lañ mës a def mooy ñun ñun ñooy jël di ci def mais amuñu leader bu ñuy defal kon tey bu ñu agsee fii suñu liggéey moo ñu fi agsil voilà. jubile teelul. noo jubile teelul parce que xam nga na tendance yi ku ko gis. xam nga ne jubile teelul.

li nekk ni beneen résultat mënuñ ko fi buñ fi créé beneen résultat. non fii moom au niveau Dakar ak fii moom nooy na mais est ce que àll bi am ngeen ci yaakaar bu baax a baax. waaw mais àll bi. Touba bokkul ci àll bi. dëgg la saint bi bokkul ci àll bi. dëgg la Kaolack bokkul ci àll bi. dëgg la waaw ñoom peut être xanaa côté ay Matam ak yooyu te foofu sax bu ñu demee. Ah. lañ doon dem ay. Dagana trois cent Dagana côté boobu yëpp. Tamba ma ne loolu yëpp daal. Ah. lañ doon wax ay deux cent trois cent. Ah. loolu ñu fa doon am dootuñ ko wax mais ma ne. carte gi changé na. dama ne. cin bokkul cafin jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay cin bokkul cafin du si suba waxoon laajoon ngeen ma interview lu ma leen waxoon bu ngoonee lammiñ dar gémmiñ lammiñ commencé na dar gémmiñ ah, ah? non du deey mais xam nga ne maanaam li ñu gisoon ci terrain bi moo ko doon montré maanaam dafa am loo xam ne ci parrainage bi lañ doon gis ni ñi lu ñu doon aaloo pour ne bi ñu duggee ci campagne bi ba ne jomaay la ñuy parrainer Sénégal yëpp a comprendre looloo tax na ñoo amoon yàqin ne match amul match amul te defe naa ne da ngeen gis lu leen gën a yéemati sax. kan lañ koy gis. suba. Eh. xam nga da nga xalaat fii ak guddi. nañ bàyyi fii suba dañ doon wax cinquante cinq wala soixante pour cent. Eh. soixante cinq soixante dix pour cent incha allah jomaay ba la. non man yaakaaroon na ngeen dem deuxième tour. deuxième tour. ah loolu laa foogoon naa. nee na leen Diagne nee na fari ngeen new. Amadou Ba. jàkkaarloo Diagne solution nee na fari nga new yow ak Macky Sall. Antali. anti bu sonko sax lañ may woowee. Ah, anti bu sonko waaw metti na nag affaire yi metti woon na trop at yu mujj yi moom lu ne dund nañ ko waaw na nañu lool mais alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla waaw yàlla wan nañ ne dëgg rek mooy dëgg te ku ànd ak moom doo wàcce doo wa doo doo doo doo doo ku ànd ak ñoom moom ndam rek ngay am waaw yàlla wan nañu ni boo ko gëmee wóolu ko mu jox la ndam. mais metti woon na quoi ngeen nekk Medina euh, mu nekk parti bu bees amu amugu leen fi ay ay ndombal tànk yu dëgër. ngeen bëgg a ñëw bu ko gagné liggéey bi métti woon na wala méttiwul man sama mag bu ma bokkal ndey ak baay mooy sama taawu yaay APR la mos a doon dem naa ba suñu famille dañu ne man maay suñu rebelle maay seen rebelle kër lu ne laa dégg lu ne lu ne laa dégg demb rek ñëw na koñ ba may xuloog moom waaw ah, dafa ñëw di ma sànni xeer ma ne ko yéen ay sàcckat ngeen eh. sàcckatu milliards yi ngeen doon lekk kotu ribaay mu daw ak otom <laughs> boobu boobu nekk yàlla li la réservé woon gis nga démb ba 4 heures du matin ma nelaw dama am insomnie total dama stressé waaw waaw xëy nekkaat di gérer ndogu yi pour xam nga ñi nekk di siéger nekk ci affaire yi mais alhamdulilah. waaw métti na mais sant nañu yàlla. nooy na nepp kon. waaw macha allah non ñii ñun xam nañ xamoon nañu fii lay mujjee wiiri wiiri bi yàgg na mais xamoon nañ fii lay mujjee day metti rek mais dëgg rek mooy dëgg te suñu leader dëgg la ñu jàngal ci dëgg la ñu tàggat ci dëgg la ñu wan ñu ànd ak moom ci dëgg looloo ñu may li ñu am tey voilà sant yàlla di ñaan yàlla nag lafal leen cat a jàppale leen ci liggéey bi continuer di liggéey bi. am Anta laa tudd dëkk fii Médina en angle 16 ma nekk euh, responsable euh, fii ci Médina bu Moustapha ba Guirassy maay euh, fii Médina fi maa fi nekk coordinatrice su Médina contentement rek contentement comme ni sama sœur sama frère di wax dañuy ñaan yàlla lii ñu sumba na ñu ko yàlla may ñu yeggale ko si ak jàmm salaam parce que vraiment yoon bi metti na sori na yàgg na mais nag quand ñu continuer rek dina baax incha allah incha allah vraiment ñu ngi kontaan ci xale yi ci mag ñi ci ñëpp parce que lii tey wane na ni Sénégal moo géen na lii tey wane na ni Sénégal ñoo bëgg a changement parce que vraiment dañoo sonnoon nag mag ñi sonn nañu xale yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu vraiment yéen suñuy doom yi sonn ngeen ñëpp a sonn mais nañu ñaan yàlla daal lii muy kii tey ak ni climat bi demee nii yàlla na lépp seddee moom ci moom noonu yàlla na lépp seddee ci moom comme glace yàlla na lépp set merci beaucoup merci